ci lu ñeel mbirum Adji ndax te dégâts collatéraux yi ba léegi jeexagul gis nañu ay coow loo xam ne jot na fee judduwaat scandale ñu ko mën a tuddee wala coowal escroquerie mu di euh, Abdou Nguer mi fi taxawoon ne frère Adji Sarr la Sidi Ahmed Mbaye mi ñu jàpp ne moom ci coow li euh, ca ndorteel ba fi ñu toll nii tey aw turam dañu ko ci rek dégg ndax ci bës bi ñu wax ne ci la coow li amoon euh, moom moo demoon ca suite ba tëjali Adji Sarr Doro Gaye mi ñu jàpp ne moom itam aw turam yàgg ko dégg ci coow li waaye cette fois ci dañoo wax ne rek dafa yëkkati fukki million dal di koy jox Abdou Nguer mu jébbal ko Sidi Ahmed mbay li waral xaalis boobu nag jot a génn ba tàbbi ci loxob Sidi Ahmed Mbaye ah, moom moo di coowal vidéo loo xam ne jot na ci juddu Sidi Ahmed mi loo woon Doro Gueye ne ko yor na ah, benn pop vidéo Ousmane Sonko boo xam ne ceeb anam bu doy doy waar la maanaam loo xam ne rek lu ñaaw la ba yegg ci lool ci digganteem ak yeneen i jigéen noonu rek la ñu ko daal di waxtaanee ba tënk ko Abdou Nguer jël euh, clé boobu nga xam ne Sidi Ahmed mbay moo ko ko jox en échange de dix millions mu daal di ko koy jébbal waaye clé boobu ba ko Doro Gueye utilisé amul lenn lu nekk te boobu lépp clé plainte bi ci jot a jib nag du Doro Gueye mi ñuy wax ne moo joxe xaalis bi moo ko plainte waaye intermédiaire ba di Abdou nga moom ci ab boppam di Abdou Nguer jot naa def ay émission di dëggal ne mbir ma dëgg la ba noppi jot caa sax jox ay explication ci jaaxal ñëpp moom moo di ana Doro Gueye mile lan rek moom moo tax ci commencement dossier ba bu ñuy toll nii nañu ci aw turam lu baree bari ci jamono ji xam ne sax ci la Mollah Morgun doon génn di waxee photo bu montage boobu nga xam ne def nañ ko ci Ousmane Sonko ñu doon wax ne Doro Gueye moom moo nekk ci ginnaawam ci coow ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi doon wax ñoom Kalifone Sanda ñu ni mel ñiy topp ci ginnaaw Adji Sarr ñëpp Doro Gueye moo leen di euh, jàppale fi ne nag section de recherche ubbi na ci ab enquête ngir mën a rek daal di xam a lan moo nekk euh, ci coow li nga xam ne moom la ñuy tudd ak ya bu dee Sidi Ahmed Mbaye moom daal dinay réagir ginnaaw bu génne mu mel ni daal dinay setalaat boppam Sidi Ahmed Bay di xamle ne amul lenn lu ko yoon mën a toppee ci mbile mbir taqewu ci laalewu ci jotul plainte te du mës jot plaint lu ni mel nag dafa mel ni moom euh, ak Sidi am na fu mu teg tànkam ndax ma ngay wax ne même bu fekkoon am na sax amul décharge wala lenn luñ ko mën a toppee tënkuñu ko ci kayit du fenn fu ñu jaarale boobu lépp xaalis bu ñu ko war a mën a rek daal di euh, toppee